Salam mbolo mi ginnaw bin santé sante yalla julli ci yonent bi ñongi am ñew teew man Mor chef de cabinet du ministre de l'environnement et du développement durable li nga xayni ni activité ministre bi ndax mom mënalu ko bopam. ndax son statut statut bi am moko ko permettrul te xam nañ ni bu duggee ci lu mu warta dugg du baax moo tax lépp luy liggéey mu teg ko ci suñ loxo ak ñi nu àndal ñu am mbégte nag ñëw tey seet si abokan moo xam ni yàgg Cheikh abokan Kane Cheikh Sohaibou bu kan nga xam ni kenn du ko présenté fii ci Touba ñu bari xam nañ ko ci wàllu politique engagement am ak ni mu mel moo tax mu jaral ñu xam lim mën a indil président de la république moo tax ñu ñëw seet si ko tey waxtaan ak moom euh, di sénti ci moom mu am accord boo xam ne day ànd ak ñun ànd liggéey bi pour président li mu bëgg mu am ko dès le premier tour mooy ñu falaat ko prem dès le premier tour ndax xam nan doolay Saint son Cheikh bu Kane xam nan popularité am ci Touba ni mel loolu moo waral tey jii ñu ñëw seet si ko ngeen fekk si ko ci jeune boo xam ne dafa xaw a particulier par rapport ak grenier électoral bu Sénégal. Ah. Touba ngeen am fi jafe-jafe ngir am fi ay ndam euh, élection yu bari yu weesu ginnaaw yi ñu dëgmal ngeen am yaakaar ne kon lii aw loolu moom am nañ ci yaakaar bu baax ndax euh, xëy na daaw ñu fi ne waaye xamal na nun moom nit ki mu doon ak lim man te séentu nañ ni bu nu àndee moom ndam li nga xam ni moom la président bëgg des dina ko am. ndax euh, buñ interroger histoire danay xam ni moom 2012 ba président duggee euh, Touba ca la ko mayan ndam loolee moom mi am na lu bari loo xam ni liggéey na ko ca loolu moo tax ñu bëgg a ñëwaat mu feddliwaat ñu tallalaat ko loxo loolu lépp li nga xamante ni amal na ci diggante bi mu bàyyi ko ñëw àndaat ak ñun pan ko defe woon mu defewaat ko ni ndax kat jige duunu man na ni kunu jigen la kon bok dañuy bëggat mu ñëw. campagne baa bi ubbi dimanche la war a tambali dañ waro a doon seen euh, thème mu campagne rawatina fii ci Touba. waaw tem bi dem moy euh ñun mom lepp lu ñuy def dañ koy def ci jamm ak salam authentique bu neexee ma ko tey euh, nga recevoir visite ay ndaw yu jige ci ministre mam jarno jeng yore wàllu environnement senegal euh, ndax mën nañ xam lu ngeen waxtane ak lu ngeen teug waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp koo xam si ñëw nga fi sa ak sa sant ginnaaw bu ñu ñaanalee sëñ tax Bassirou yàlla yàggal ko fi yokk ak manam ñaanal sëñ Saliou Mbacke fu mu nekk it euh, mu gënal ko fi mu bàyyi ko di ko ñaanal yàlla yokk ak reeram waaw ñëw euh, bi nga xam ne si dafa nekk délégation bu jóge ci ministre ci Thierno Dieng ci njiitul moo jaar Guèye Cheikh Seye bu amatul lu contacté ak mbégte contentement boobu ak mbégte boobu ci am nag mooy intérêt Sénégal yaakaar naa la ci jiital jàpp nañ ne euh, maam Thierno ku ko xam xam ne deful politique waaye nag ku ko xam xam ne bëgg na Sénégal bëgg na réew mi ndax Cheikh Seye bu ku ko xam xamoon ne euh, membre fondateur APR yaakaar la. nekk ci ñi nga xam ne ñoo ko fondé ba dara amagul ba dara xewagul Cheikh Souhaïbou la woon ak Abdou Lahad Seck Sadaga mm. kon jii koo fi dégg tey jii moom muy wax rek yaakaar ne dafa neex tey jii mu ñëw mm. Cheikh Souhaïbou nag noo xam ne si bokkut ak ni ñi ngi bokk ci bi ni ñuy doxee mooy dafa def ci lu bi loo xam ne si ñaari kenn defu ko ci def ci yoo xam ne si kenn kenn kenn defu ko ci te gis ci boppam moo tax législative yi ak élection yi jàll yëpp Cheikh Souhaïbou doon woote sanction loolu nag bis ni ko tey jeex na tey bis ni ko tey loolu dakk na tey ak garage nag maam Thierno Dieng ci njiitu moo jaar kay dama ne képp koo xam ne si daa nga laaj Cheikh Souhaïbou fan la féete Cheikh Souhaïbou moom féete na fa ko ñëpp xame Cheikh Souhaïbou doomu parti bi la Cheikh Souhaïbou mi nga xam ne ñaare moo faroon président Macky Sall 2012 Cheikh Souhaïbou wàññi ko waan na pour jàppale président Macky Sall pour intérêt Sénégal parce que dañoo gis ne li mu def ci Sénégal yaakaar ne képp ko xalaat baa nga gis yaakaar naa ne war nga wàññeekuwaat xam ne kii ku jox deuxième mandat la. Mm. Cheikh Souhaibou bi ci loolu la nekk te incha allah képp koo xam ne yaa ngi jàppale président boo tëddee na nga nelaw te xam ne incha allah yàlla la mayoon bu ko nanguwut jàpp naa ne la bëgg incha allah dina ko am gën a gënee Touba incha allah dina gënee Touba su ko yàlla dogalee. peut-être euh, euh, euh, sa bopp ci parti bi boobaag léegi ba taxoon nga banque say loxo élection yi ñu weesu yëpp su fekkee dégg nañ kàddu gi kon caafara dafa jóge ci ministre bi jëm ci yow. benn saafara jógul ci ministre bi ñëw si man damaa ñëwaat comme que Sénégal la di taal bi di am murit bëgg nag ñi nga xam ne ay Sénégal nekk ci biir réew mi gis seen bopp ci biir réew mi ma xalaat ne président ma nga ci loola loolu moom moo taxaw wàññi ko waat ak gëm ak jikko yi ma gis ci ministre bi nga xam si mooy ministre Mame Thierno Dieng ñi mu ànd ku mooy Diarra Gueye moo taxaat ma ne wàññi ko waat lépp lu ma jàpp ak lépp loo xam ne si taxoon na ma may may doxe neen nu bokk tak noona loolu ma dindi ko ba mu set wicc bis ni ko nañu xam ne Cheikh Souhaïbou bu ñëwaan na te Cheikh Souhaïbou ku ko xam xam ne yàlla def na ko euh, sens yàlla def na ko ndimbal yàlla def na ko ci aussi moom ci ndam rek ci lay dox loolu moom yàllaa ko def man defuma ko yàllaa ko def ko nag bu ñu tëddee nañu nelaw amul kenn koo xam fii mën nga tiital président yaakaar ne mën nga fi am dara ku mooy président en tout cas ñëwaat nañu te ñun bu ñëw doole doole lañuy ñëwee suñu gëm-gëm lañuy ñëwee suñu engagement suñu engagement lañuy la ñuy ñëwee duñu waxantu fii nag kilifa gu nekk ñëw na fii ki ngee tudd tey jii su ma neexoon tey jii parce que maa ngi ca am na benn kaay bu ñu naan maa ngi ca maa ngi ca liste ba nga tudd tey dama ko hmm. su ma neexoon tey jii dem foofu mais damaa xam ne gënu ci réew ki gën ci réew mi mooy ki fi nekk tey. personnel rawatina fi nekk di allié am na ñoo xam ne dugg nañ fi ba jàpp nañ am na lu ñu fi mel ne Ousmane Sonko barki dem la yaakaar naa ne loolu nga wax de ay yoxoo moo ko fi jëlee. ki nga tudd ay yoo xam moo ko fi jël ak ay xeer non yaa ko wax ki nga fi tudd ay yoo moo ko fi jël ak ay xeer Cheikh Souhaïbou fu mu am place ci dëkk bi rek soo fa demee te bokk leen fu ngeen féete yaakaar naa ne foofa moom dafa dafa am jàmm nga tudd du yaa ko tudd mais yaa ko tudd non mën parce que yaa ko tudd man président laa xam président laa jàpp ne mooy ki nga xam ne moom mooy ki gën ci moom la ñëpp war a xam man bëkk dem yaakaar naa ne ku ma xam-xam ci liggéey nga ma xam bëkk dem Dakar laa xëye yaakaar naa ay 6 heures nangam laa fa jógee te 8 heures fekk naa sama atelier loolu la ko def mm-hmm. ilaa tuba bi ah taxutut kenn naaje une heure dix minutes nga ak Dakar ah. c'est bon kon daal base bi nga yor kon jàpp nga ne amul kenn koo xam ne gars yi nangu nañ ko parce que su fekkee dégg nañ information yi ñuy wax ñun déjà allié gi rek euh, am nañu fi base bu dëgër boo xam ne kilifa ñu leen di jàppale aussi c'est-à-dire léeg-léeg ngeen dégg ñu waxee foo xam ne ñaare waxi politique la ñu wax xaj bi ma matt du baw la ñuy wax amul fii dafa am foo xam ne yaakaar naa ne dëgër la loo xam ne fëkk yóbbu leen këfit yóbbu leen ni ko amee fi nag noonu la ñu ko amee yëpp ci biir Touba ak li wër Touba. nag maa ngi jox nag nit ñi rendez-vous la 15 incha allah fii ci Alieu ci benn euh, ndaje boo xam ne ndajeem diine la boo xam ne fépp fu militant Cheikh Souhaïbou Kane nekk. incha allah di nga ñëw su boobaa dinañ wane Cheikh Souhaïbou aussi la am mais daal dinañ xam ne bis ni ko tey Cheikh Souhaïbou nam defoon 2012 ba fal président defaat dinañ ko defaat tey jii à 2019 ba faat ba faat président